waaw fay naa la maa ngi lay siyaar bu la maa ngi lay a baax. ah ñu sama waay la ni lay sonné samay mbir c'est la première fois mu ñëw saa yu open presse man ku nekk nag xam nga. yàlla dafa tax nekk na nit koo xamante ni lu may def lu may def da siy ñëw ndax si lépp sonn ci mën na taxaw ne carrément xam nga war na nekk si ay entraînement wala affaire yooyu ma waral tey nag ma fay ko borom dama ko fay borom te sa nag doomu Lebu laa nekk sama mbokk moom mbokk la ci man ma waral ma ñëw xam nga bu pare ne ma tey ji open presse ma ma def teew xam nga mu nice dëgg ne da ngay seetaan lamb ah mais samay may amateur bu mag a mag mooy seetaan bu baax a baax <laughs> comme que da nga yëngu ci ambiance bi ñëwee gis fii ni mu mel ak xale yi def yëg waaw man mbégte ah parce que ñun ñëpp ñu bëgg te fu ñu dem tamit moo tax dañuy gën a góorgóorlu gën a kontaan saa yi ma gisee ñi ñi tey xam nga béggee ma rek man damay gën a waaw gën a yokk job quoi noonu la demee daal xam nga Siteu bu Ngor ku muy bëreel déggu ma Siteu bu Ngor xam nga kan lay bëreel ak xam naa ko moom tamit daf maa bëgg mu bëgg la nit baax la nit ku borom rëbës maa ngi koy siyaar bu baax a baax moom it taxawaay nga am ci combat bi ñoom ñaar non lépp Sénégal la ndam bi mënul génn Sénégal tey ñoom ñaar ñëpp tamit jàmm dañuy dund jàmm isaay na xarala waaw ku si nekk tamit da ngay jéem a foxati mais man Siteu moom tamit xam nga sama waay la sama xarit la sama mbokk la dëgg neexul yàlla na ko yàlla defal jàmm. nan nga ko gisee. non moom guerrier la moom jàmbaar la moom jàmbaar la nekk na koo xamante ne xam nga bañkat la quoi waaw moom bañkat la day am tàmmu kanam incha allah. waaw ah, doo doo ñëw ba dem du ma la laaj parce que ambiance bi. bari gis nañ ñi ngay génnee ni muy neexee nit ñi ak ni ko nit ñi di abondé ak ni ñu koy bëggee naka la lay di génn. waaw loolu day naturel rek xam nga parce que man lenn dafa am man lépp lu may def day naturel rek xooluma lu kenn di def toppandoo ma kenn li may def man la quoi maa koy fil maa koy def te su ma koy def tamit dama koy def xam nga ak ak ak yéene quoi wala tam gars yi di ko bindee noonu day gën a yàgg day gën a neex incha allah. Euh, musique bi dafa am lu mu tolloon mais dafa am beneen touche boo xamante ne da nga ko cee andi sa lépp da ngay kaf da ngay foo da ngay ree mag ak xale ñëpp koy bëgg. waaw te am na feneen fu mu war a waat incha allah am na bu ñu koy indi am na feneen fu mu war a yóbbu parce ku am seetlu bu baax sama bi ma mujjee génne maa si jàllale ay message am solo naan àdduna yàggul bul jaay sa ngor loolu rek bu alal fukki sa bët ne man noobul laa. nga tey jii loolu nit ku nekk xam nga tey jii loolu war na ko dundoo sax boo xoolee la woon nga dëgëral sa bopp xam ne yow boo yoree juróom wala boo yoree million yi bul faale ko million loolu doy loo ko voilà xañ tamit nag mënu ma cee bañ a ñàkk a wax ñu ci bàyyi nee nañ da a yaa gën a yaa gàq si yaa man la yàq yaay Baba Diagne ma ko fari ma man la ma man la ma Motaari Mbaye Diagne man la sëtu Basiru Diagne sama maam daa mënoon sañse sama baay mënoon sañse kon man fu ma jaar yoon la dëgg neexul waaw. waaw su ma ñëwee esthétique ànd ak Viviane ci benn son nangul ma da koy njëkkoon a joué joué waat ko mu nekkee saa bi soo bu gën a jàppale bu ñu gën a seetaan yàgg Viviane nan la si boobu nan nga def ak affaire yi réussir touche bi jàppoon mais sax xam nga loolu. waaw loolu loolu dañu ko def naturellement rek mu nice. jaar laa ren maa ngi koy ñaanal jàmm aussi Viviane nit ku baax sama mag sama fa maa nekk nit koo xamante ni xol bu naaj sa yore dafa def son bi son bi man fay bi mu waree génn lañ ma woo ma rek ma ñëw suba la bi di génn a ñëw rek man xam nga rek yokk si ay caf ko daal waaw dëgg la. lenn laa ci jàpp loo weex weex nangu ne maa sa diva gi. dama ne cin bokkul jafin Viviane xorom xorom ci loo weex weex maanaam ak ak loo weex ku weex weex nongol ni Vivi mooy niveau ak Yékini mu ne ko Vivi yaa ngi gaañ bëgguma coow waajal waay non non non bëri na ñoo xamante ni su ma gisee ak ñoom sama diggante yow daw ma ci dara man maa ànd ak yow sama dara nga sama waa nga maa ngi doon ñëw dem ko sama àdduna ragal ma ci dara xool ma ko mer ko mer yow laa faral yow laa àndal sama waa nga sama mbokk nga sama dara la kii sama dara la kii dafa bëri kii yu ma nekk mu ngi ci mu ngi dugg yëpp la yëkk nit ku nekk di la yàlla def da koy nangu